Merci beaucoup. Comme vous avez dû le constater, nous avons assisté hier à la déclaration du président Macky Sall et en le voyant, on pouvait nettement relever qu'il n'a jamais été aussi étroit dans son costume sur mesure en nous tenant un discours sans mesure, alors que la mesure qui était attendue était de fixer la date de la présidentielle suite à la décision du Conseil constitutionnel. Ce dilatoire des temps anciens, ce dilatoire politicien ne peut prospérer. En même temps, il nous dit qu'il ne compte pas démissionner d'ici la fin de son mandat. Et par conséquent, il ferme la porte la succession par le président de l'Assemblée. Au même moment, il nous rappelle l'article 36.2 de la Constitution qui dit que le président de la doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Une autre manière de s'adresser aux Sénégalais et de nous faire comprendre qu'on n'a pas le choix. Ce sera lui ou lui. Monsieur le Président, ce ne sera plus vous. avez fait votre temps et il est temps de partir. Ce ne sera pas vous parce le peuple sénégalais a fini et a marre, totalement marre de vos méthodes. Le front un communiqué dans lequel il a tenu à être extrêmement précis, vous rappelant que du processus électoral. Mais l'invite que vous leur faites aujourd'hui, c'est de vous positionner en arbitre devant un spectacle d'opposants qui s'opposent entre eux devant vous et dans votre palais. Nous ne sommes pas de ce niveau-là. Et jamais nous ne descendrons à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de respect pour tous les opposants. Et ce pas au moment de votre départ que vous allez opposer les opposants. Les positions sont claires, nettement définies, par chaque groupe et par chaque candidat, qu'il soit retenu, spolié ou exclu du processus électoral. Il est hors de question de nous réunir pour acter nos divergences et trouver une porte de vous maintenir. Nous ne le ferons pas et nous ne vous donnerons jamais cette nga koo rey bëgg nga koo kekkantu mais ñun ay kilifa kilifa ci doxalin la ci taxawin la te amul waxtu bu mos a jot te wane wuñu suñu kilifteef ci lépp lu mu mën a doon du tey nga xam ni opposant yi ku nekk joxe nga sa position nga war a dem ci nga leen di dajale au palais pour xool noo leen di jaxase kii wax dama bëgg élection yi am kii wax dama bëgg reprise processus électoral bi am nga toog di leen reetaan wax ni voilà votre classe politique c'est une classe très responsable liñ lay laaj et moom la la conseil constitutionnel wax mooy nga fixer date élection présidentielle avant le 2 avril nga dem FC25 ci avant dernier communiqué bi mu def fàttali la ni ci fii ñu toll ci processus bi sa ay interlocuteur ci datu élection dafa war doon 19 candidats yi wante nga ni leen ñëw leen yéen ñëpp ngeen toog ngeen waxtaan ñaari fan boo leen juboo baax na boo leen juboowul ma delloo ko conseil constitutionnel kon delloo ko conseil constitutionnel mu gën a yomb déjà ñun daanu saisir pour wax la ni loolu ngay bëgg doxal ko suñu diggante ci biir opposition bi dul la ko may ndaxte dañu am respect ci opposant bu nekk dañu am respect ci classe politique donc toog di reetaan war acte suñu ay divergence dul la may occasion boobu tëj buntu succession par le président de l'Assemblée pour wane ni sénégalais yi amuñu benn pexe man lay doon wala man loolu dafa doon li nga xam ni aussi pratique politicienne yu ndaw la yu néew li wér mooy askan wi pare na ci yow li wér mooy askan wi le 2 avril mëntu la considérer comme président de la république li wér mooy nga bëgg ko ak nga bañ ko jël dina am te dem dina am kon na dem bi rafet di leen gërëm di leen sant wasalaam Gaïa, donc représentante de, de Présence Ringo. Euh, je suis Ndiaye Mbao, directrice de campagne du candidat Sering Donc, à l'instar des autres candidats, euh, ils refusent systématiquement le dialogue. L'heure n'est plus à dialoguer, L'heure aujourd'hui est à choisir euh, le cinquième président de, de la République du Sénégal. Ce n'est pas un exercice aujourd'hui euh, nouveau. Le président Macky Sall a été choisi euh, démocratiquement selon des processus, des processus qui ont été respectés, selon des règles qui ont été édictées bien avant qu'il soit euh, président. Donc Euh, exigeons aujourd'hui qu'ils fassent la même chose, qu'ils euh, respectent la constitution du Sénégal, parce qu'un pays sans respect pour le droit n'est pas un, un, état de droit. Il nous a habitués justement à ces dérives. Ce n'est pas la première fois. Pendant 12 ans, le peuple sénégalais a subi les dérives du président Macky Sall. Et nous pensons qu'aujourd'hui, s'il initie un dialogue c'est plutôt un dialogue de réparation des droits des Sénégalais qui ont été spoliés, c'est-à-dire les gens qui sont injustement emprisonnés, c'est-à-dire